instant bi journaliste yi nekk ci Sénégal dafa mel ni dafa bëgg a commencer doon crime parce que après Pape Alé gis nañ fi Pape saane mbay génn ni dañ ko doon jéem a tenter pour pour jëm ko éliminer moom moo def live Pape Sané Mbaye bu Walfadjri wax loolu noonu euh, ca boobu jamono Pape euh, kii Matar Diallo moom itam lu jiitu loolu génnoon na moom aussi teg sax ay vocal yoo xam ne yónnee nañ ko ko di ko menacer de mort Moustapha Diop bu Walf idem eh, ñu gis ni journaliste yi jamono jii nii fi mu ne nii eh, ñi ngi commencé di leen bundu xattala ci réew mi ñu toll yooyu yooyu yow information yi yëg nga ko instant bi nii yow en tant que Ibrahima géey nay leer eh, bi nga déggee ak suñu démocratie fi mu toll ban jàngat nga am. ci ci xam nga lu leen dal yéen journaliste yi. Mhm. dañoo li dal Sénégal yëpp leen dal waa dëkk bi dañoo daje. Mhm. léegi dañoo am seen i bëy yor seen i bëy yu bari na dañuy sàmm. Mhm. ñu ne dañuy wut ku ñu sàmmal ko mën a sàmm. Mhm. gaynde dikk ñu ne ko si gaynde yow da ngaa bëri doole da ngay tooñ mënuñu la dara. Mhm. gaynde ko yow dañu la jox say bëy. waaw. ñay ñëw ñu ne ko si ñay da ngaa da ngaa rëy yow mënuñu la dara boo rajo boo rajo suñu dee. Mhm. bukki ñëw ñu ne ko ah bukki ñëw ñu ne ko bukki raaw bukki baax na bukki jooy ñu jox ko 40 bëy. moom bukki ñu jox buy bukki ñu jox ko 40 bëy ne ko demal sàmm. bukki dem ba ci buntu kër gi. Mhm. dikk taxaw daal ne ah 37 bëy wàññi na ñaaragum en attendant <laughs> yéen bu Sénégalais di yuuxu yéen journaliste yi. Mhm. ba ñuy dénk Macky Sall réew mi ñuy dóor commerçant yi yéen a ngi fa da ngeen war di Macky Sall ku ñuy xeex la du ko ñuy seetaan bu ñu xeexee bu tey Macky Sall tey bu dalee ci yi. Mhm. bu suba mu ngi ci commerçant yi bu subaa mu ngi ci pêcheurs yi bu subaa mu ngi ci transporteurs yi bu subaa mu ngi ci baykat yi bu subaa mu ngi ci sàmmkat yi. noonu mooy njiit loo xam ne nii day doxe injustice ak dictature dictature boobu daal ci kaw opposant bi moo daal ci seen kaw te yéen hmm. injustice bi daal ci kaw opposant bi mu leen di jàpp di leen génne ci dëkk bi moo daal ci kaw yéen journaliste yi gis nga Pape Alé Niang hmm. li muy dund nii bu bu bu jógee ci Pape Alé Niang mën na daal ci seen kaw ndax fan yéen ay réseaux yi dañ koy nangam ak nangam li muy xeex yéen journaliste yi ci yéen lay xeex ku ku xam ku mu ku mu fi bàyyi hmm. seen patron yi seen patron yéen nangu yenn patron yi nangoon nangoon topp ci ginnaawam di ko defal li mu bëgg ñooña la fiy bàyyi de waaye déggoo man gisoo ko mu ne attaqué journaliste RFM dégg nga ko déggoo ko. dégg nga mu so attaqué journaliste bu bu bu DSTV. defu ko yéen nag yéen a war a yeew ndax yéen dañu leen a yee te yéen yéen a waroon a yee nit ñi léegi ñu walbati ko di leen yee journaliste yi te du ngeen yeew <laughs> yee bi ñu leen di yee seen njëriñ la gis nga Macky Sall. waaw ñi ànd ak moom waa RFM ñooñu noonu. Mhm. mosu leen indi leen jafe-jafe. fekk yaa ngi wax li mu bëgg di ko defal li nga bëgg di ko xalamal moom loo def baax na. loolu baax am ndey la ku mu amul ndey. loolu moom lay dundee ak ñun. opposants yi moom lay dundee ak moom lay dundee ak population bi population bi bi ku ku ku nekk Macky Sall li nga def neexut sax amuñ ndox manifester sax mu jàpp tëj ci kaso bi manifestation aw ma ndox dañoo manqué courant mu jàpp tëj ci kaso bi wala mu génne ay nëru ñu dóor la kon kay yéen mun leen cee mucc bu ngeen mënul def li mu bëgg yar bi day dal seen kaw. léegi nag xeex bi. Mhm. bu ëllëgee bu ñuy xeex ñun citoyen population yi bu ñuy xeex dee leen ci bokk di dénoncer ndax dénoncer Macky Sall dañ ko war a dénoncer ci ñaawte yi muy def na Sidi ña si doon def démb bu ngeen ko defoon Macky Sall du leen mën a dara Macky xam ki mu ki ki mu gën a kii mooy ki nga xam ne da nga koo ragal da nga koy attaqué boo reculer mu dal ci sa kaw. mais ñu journaliste ñi ngi def li ñi ngi dénonce pour dénoncer tax ñu leen di menacer. dem xam nga da ngeen dénoncer ñu ñu wekki seen ay ruu yu oto. noonu day créer. day créer beneen beneen journaliste ci côté bi beneen beneen journaliste lay créer ci côté bi booba di contre di contre ak yéen ngeen di xeexante ci seen biir noonu lay def te loolu du ko jaarale ci ñoom de da koy jaarale seen patron yi ñu koy def ci suuf di matt di ëf hmm. matt di ëf boobu muy def nag moo jaxase yéen boobu du nga am doole waaye daal li nga xam hmm. na ngeen taxaw ferme insha allah taala jàppale Pape Alé Niang yéen journaliste yëpp presse n internationale ñëpp ngi jàpp boo demee presse internationale ñëpp ngi ciy jàpp association journaliste yëpp ngi génn di xeex liberté nit ki yàlla moo ko jox liberté sa lépp yàllaa la ko jox sa métier waxuñ la nga def naka su dul waaye li nga xam ne yaa ko moom yàllaa la ko jox Macky Sall bu la ko bëggee xañ da ngeen bañ faire face ak moom Macky Sall Ousmane Sonko lii mu def nii càkkaar la moom résister moo tax mu existé ba tey su nangu woon tey rend na ko jéggi sànni na ko bu yàgg waxatu ci yéen journalistes yi nag ñun danañ taxaw ci seen ginnaaw yàgg la ñeen wax jàpp taxaw leen bañ leen li ñu koy waxee justice bi la ñeen koy waxee mm-hmm. nekk leen benn ànd nekk benn ku nga xam ne nii strons bu nekk seen biir bëgg ànd ak Macky Sall ci naaw ñaawte yi muy def hmm. da ngeen koy attaqué hmm. mais da ngeen ragal mais ne yow si Ibrahima Gueye parce que yow tamit ci homme public nga bokk parce que ràññee nañ la ci euh, Pastef ñu ngi wax naan am na ci ñoo xam ni Ah, parce que euh, euh, bu ñu sukkandikoo ci ci ci Pape Alé Niang ñoom arrestation progressive lañ kii yow fi mu ne nii boo commencé guñ la envoyé message seen message yooyu wala di la di la. ceeb man man Ibrahima Gueye nay leer mii. waaw damaa jënd damaa damaa damaa damaa opté ñett dama def mm-hmm. testament. <laughs> bàq ya. déet waay sëñ bi. bàq ya rëbës hôpital ñett yooyu xanaa mënuma ci moom dara gënu ko métti rëbës bàq ya hôpital. fu ci am baax na li tax ma wax ko ab ab aw askan day xeex liberté duñ ko négocier d'accord gis nga ñun li ñuy sonal ñun Sénégal Afrique sax li ñuy sonal tubaab yi dañoo jóge fii teg fi ay quelques personnes ñu nekkal leen fi ñun population bi ñun not ñu ba duñ ñemee wax duñ ñemee résister te tubaab bi bañ jaaxale Afrique la ñëw ñu xeexal leen gañal leen Afrique waaw léegi nag ñun ñu dikk jël ay quelques personnes tegal leen fi organiser seen ay ay union africain xam nga ay CEDEAO teg ay seen tappale bëgg not askan wi ñu nekk laa fi tubaab yi dañuy résister di xeex xeex boobu nag bakkan Ousmane Sonko li mu lay wax ne projet bii ku ci parewut ñàkk sa bakkan wala ñàkk sa liggéey wala dem kaso comprendre loolu ndax ñi ko seqal dafa dañoo jéggi Macky sàll système bi dafa passé Macky Sall maanaam révolutionnaire lañ teg hmm. sensé suñu Afrique sensé suñu Sénégal dañ ciy teg suñu bakkan te dañ ko ci teg Macky sàll xamul ne ñoom taxuñu Macky Sall taxuñoo jóg ñun Macky Sall taxuñoo jóg ñun dañoo bëgg am souveraineté liberté totale souveraineté économique maanaam lépp suñu culture lépp dellu si ñu moom ñu moomal suñu bopp suñu réew doxal suñu pro suñu suñu euh, politique développement ni ñu ko bëggee ñun loolu moo ñu tax a jóg mais Macky Sall moom dafa yaakaar ne ñun moom la ñuy xeexal Macky Sall gën a tuuti si ñu xeex ñun dañoo bëgg am suñu souveraineté indépendance totale lañ bëgg am. te duñ ko négocier ndax eh, maanaam seule la lutte libère. kon parewu leen pour toog ak ab président Macky Sall ci benn taabul moom moom xëy li ñu nag li ñu fekk li ñu alxuraan wax ne. Mhm. maanaam walan tarda ankal yahudu wala nasara hatta tattabia millatahum fa lañ yegg ak maanaam occidentaux yi fa lañ yegg ak képp ku bëgg a arrêté suñu projet bi. walan tarda ankal yahudu suñu borom nee na yahud yi ak nasaraan yi jàppe wuñu leen yéen ay nawle li feek bàyyiwu leen li ngeen nekk ñëw ci lu nekk ñun nag ñi feek amuñ liñ bëgg wala ñoom ñu bàyyi fekk suñu ci liñ bëgg duñ leen duñ duñ bàyyi Macky Sall négocier bi négocier bi na teg dëkk bi ci yoon mm-hmm. gouverner dem Sénégal yi tànn keneen kuñ ko dénk muy Ousmane Sonko mm-hmm. muy Karim Wade muy Khalifa Sall ku mën a doon ñun ay anti impérialisme lañ ñun dañuy ay ay panafricanisme la ñuy doon ay xeexkat pour am suñu liberté la ñu procès bi dafa passé ay nu mu tuddati ay libéral ak yeneen idéologie yi nga xam ne moo tardel Afrique mhm. dégg nga ñun dañoo nekkut yooyu ay socialiste ay libéral yooyu nga xam ne nii seen idéologie yooyu ba léegi ñu def ci Afrique fii gisuma ko ñoo ñu tardel te loolu tubaab yi ñoo ñu ko teg ñu bañ a jël suñu suñuy constitution sax dañu ko bindal suñuy suñuy suñu éducation sax ñoo ñu koy transférer nu leen neexee di jàng cent 1960 ba léegi say doom mënuñoo defar benn puso mënoo bay loo dundee mënoo faj sa bopp boo feebaree da ngay paas dem Europe faju ji wala nga dem France faju ji ci yooyu yëpp ñun ci lañuy ñuy xeex ñun souveraineté la ñuy xeex Macky Sall dafa war a comprendre ñi muy jàkkaarlool ñaan lan moo leen tax a jóg moom dafa am lu ko ëmp tuuti politique politicien bi fi nekkoon la yaakaar ne moom la jàkkaarlool daf ñun nekkuñ foofu ñun fi ñu nekk mooy ñun moom suñu bopp développé suñu dëkk bi suñu doom yi di jàng di faju di jàngalu am ay ay usine di liggéey yor di dund comme ni Europe yi dunde dañoo bëgg dem ci vi dañ ñaan ay visa ñu ñuy dàq ak di ñu toroxal loolu sax daf ñoo neexut dañoo bëgg tubaab yi li ñu am ñu toog fi am ko d'accord suñu maam yi liggéeyal nañ tubaab yi ba màggat ña nga Amérique ña nga Canada ña nga France dañuy liggéey ba màggat doon ñibbi senegal di bay di sàmm di dugg ci usine yi liggéey doo gis njaboot ba kañ. mais sëñ Ibrahima waaw yow combat bi nga sumb nii di di xeexal président Ousmane Sonko est-ce que yaay xaar ëllëg nekk am poste député wala ñu. noonu la yow yaa ngi jum ba léegi de yow xeexal Ousmane Sonko Ousmane man lay Ousmane Sonko moom laay xeexal. d'accord woo ko ne ko ndax Ibrahima gi yow lay xeexal. xeexalu ko de. ah Sénégal nga xeexal waaw xeexalu ma la man mii xeexalu ma la. <laughs> wax ko Sénégalais kon ñu dégg ko. président son Sonko laa koy wax. waaw président Ousmane Sonko xeexalu ma lii nga woote moom laa bëgg bés boo ko wootiwul duma la xeexal àndoon naag Macky Sall yaakaar na fa la fa nga foo ma bëgg la jëm mu won jëmu fa. waaw yow mii tey yow mii àndoon nga président Macky boo demoon Touba Mbacké. marché Ocass kër sëñ Mahamadan. waaw laajteel Ibrahima Gueye numéro 3. <laughs> dama daan ànd ak Macky Sall di xeex di xeex xam nga kañ laa génn ci moom. waaw ba mu naan troisième mandat laa doon def woon adduna bi ko ba segg mu xëy ne mënutuma koo def. Ah. laa ko ne kii duma ànd ak moom. na ma jàppe woon ba Macky Sall mu wàcc yoon wa ma wacc ko Ousmane sonk mii ni laa ko jàppee li ma gëm la li ma gëm ma gis mu teg projet bu mu am yaakaar senegal yëpp moom la ñu àndeek moom wala boobu quatre-vingt-dix pour cent yi ànduñ moom ndax dafa rafet ànduñ moom Ousmane Sonko la tudd ànduñ moom Casamance dëkk dañoo ànd ak moom am ci yaakaar senegal bés bu yaakaaree nag ne hmm. moom la ñuy xeexal hmm. projet bi moomu ko moom ah, d'accord moom projet bi moo ko jiite idéologie ba pare na ci jàmbaar nekk leader bi di ko incarné ni ñu ko bëggee mu ngi koy doxale waaye bés bu wàccee tarfatil ay ni ñu teg ko ci yoon wi la euh, Seydina Omar waxoon mm-hmm. ba mu nekkee amirul muminina mm-hmm. taxaw ci jàkka ji daal di wax ñëpp toog mu daal di gën a jaas yi dal di ne man day daal daal di daal di taxaw jàkkaarloo waa Madina mm-hmm. ne leen day maa ngi sant ñëpp def xutba boobu daal ne bés maa leen di jiitee waaye gënuma leen defuma leen nii waaye bés bu ma wàccee yoon wi mhm. na ngeen ma delloo si ci yoon benn waay génn ca sàppe sax mhm. ci jaaseem ne ko Seydina mu ko Omar ibnul Xataab mu ne ko ah. mhm. mu ne ko waxuma la bés boo wàccee yoon dañ lay bàcc ci dañuy wàcce yoon waaye jaas ji la ñuy dagg sa baat ne ko Seydina Omar mu ne ko bés boo wàccee yoon li yoon wi nga xam ne moom mooy mooy l'islam mooy li nga xam ne moo la fi yonent bi woon jaas jii la ñuy dagg sa baat d'accord daal di roofaat jaasim Seydina Omar daal di ne alhamdulilahi rabbil alamina ginnaaw xeet wu mel nii laa jiite sant naa yàlla xeet wu nga xam ne su ma naree jàdd yoon ñu delloo ma suma ci yoon xeet woowu laa bëgg a jiite hmm. Seydina Ousmane Sonko mii <laughs> foofu Seydina Ousmane waaw foofu moom la ñu wax ndax xam nga Seydina ay jikko la rek sang moom ay jikko la hmm. boo déggee yoon Seydina Ousmane hmm. képp ku ñuy tagg ci sang ay jikko lañ lay lañ lay tagge ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy mooy Seydina Muhammad yàlla lu mu ko jikkoom rafet. Mhm. kon nag Ousmane Sonko Ousmane Sonko war naa mën a am naa Ousmane ndax ay jikkoom rafet léegi daal li may wax mooy ànduñu ak Ousmane Sonko xeexaluñu Ousmane Sonko. Mhm. bu Ousmane Sonko continuer di xeex dañuy xeex bu fi jógee continuer di xeex dañuy xeex ba am suñu souveraineté ak suñu économie suñu suñu moom suñu bopp. d'accord mais yaa ngi xalaat euh, ci ëllëg ci biir bu ngeen faloo ñu ñu jox la cë sedd la ci cër yi poste député ak sëñ bi xam nga sedd bu fekkee cër moo tax ñuy xeex dañuy andi yem ci Macky Antoine Diome ñëw na fii ci élection yi passé ñun bu ñu poste doon tax a xeex wala ay intérêt dafa ñu xeex maam Dame Lo maa ngi lay nuyu di la ziare élection yi passé maam ah, Antoine Diome ñëw na Touba ñëw na Touba parce que ñu ñooy lañ fi tàmm a gis ah. di jënd ay nit waaw di dugal ci parti bi hmm. boo bëggee am fi mu nga ab kaat kaat lañ ko jox jox ko xaalis dem na ci Macky Sall te loolu su ma ko bëggoon duma jaar ci Antoine Diome d'accord su ma ko bëggoon tey tey tey bu ma neen APR salaamaaleykum ubbi leen bunt bi xaalis laa bëgg ñaar lu ñu dégg waaye man gis nga lekk sama cere mbuum ak sama sama ñebe. Eh, yaa ngi wax lu neex. déglu sama cere mbuum reer sama eh. cere mbuum sama ñebe. am sama jàmm tëdd kenn du ma déranger. moo ma gënal ma jël lekk ginaar ay misi woo xam ne soo ko lekkee bu guddee sa biir di daw. doo ma non cere mbuum boo ci toggee may monsieur Ibrahima. léegi foofu laay waxee man. Mhm. man ma am sama liberté moom sama kii moom ma tax di xeex Sénégal Sénégal développé ku feebar faju ku bëgg a jàng jàng ku bëgg liggéey liggéey. Mhm. réew mi am jàmm am naataange moo ma tax di xeex. dafa am lu métti. Mhm. loo xam ne danaa koy wax toujours dafa am ñi ñu ne ca àll ba. Mhm. bu seen doom feebaree. tëdd feebar balañ koo ñemee yóbbu hôpital xale bi day ñàkk nelaw wala xale bi yaram muy jooy jooy yu métti nangul nelaw wala nangul lekk si ngay door a ñemee dem hôpital xam nga lu tax doo ñemee dem hôpital. boo demee hôpital askan nga fay xaar. merci beaucoup sëñ Ibrahima loolu jërëjëf sax moom ba ñu ko mënee tuddaale ci biir émission bi laata ñuy tëj parce que ki démb euh, benn waay comme comme li ngay wax ni yóbbu doomam euh, hôpital euh, pour ñu faj ko médecin laaj ko ni ko ndax Pastef su ma doon voté jamono ji Ousmane Sonko laay voteel ñu ni ko li nga wax ne dina la coûté cher ba doomam foofu la jaari ñàkk bakkan lii xew na fii ci Sénégal fi mu ne nii waaye nag xam nga loola may wax wax dëgg yàlla man wa maa shahidnaa illaa bimaa alimnaa. gëw ma gëw ma la mu wax. gëw li mu wax xamul tax gëw la mu wax. pourtant moom. Euh, bay ma xam xamul tax gëw ma la mu wax. Mhm. fii ci Sénégal. Mhm. nga dem ci hôpital ma la ndax Pastef nga bokk ab médecin la Pastef nga bokk loolu wax jooju yéen maanaa ci sama xel.